waa kay bismillaahi rahmaani rahim liggéey bi dinañ fi tàbbee moom ñun sosunu ko dañ ko fee fekk danoo fekkan Cheikh Issa daan ko liggéeyal Serigne Touba sëriñ Baara mi ko fi njëkk na wóotoot daan ko liggéeyal mboolem doomi Serigne Touba yi mu jamononteel bi mu fi bàyyi ko it Serigne Ngagne di sëriñ naa di sunu waajur liggéey bu mu wëyal ko. muy xari tabaski yi di addi ñu muy jël di koy yit Sëriñ Tuubaa at mu ne saxal ko di ko def ba ni mu fi bàyyi ko te it nag moom it ci jamono it nag mu yokk ko bu baax a baax a baax a baax ndax jamono bi fi sëñ baar Baari jóge 1986 boo ko fi nekkal sëñ Tuubaa ko ne sëñ Baari naa la jox téeméeri xar te bokkul yeneen yi nga xaay moom lay jox ñeneen ñi sant bu saak yeneen jege ñaale sëriñ bi waaye ci jamono sëriñ moom yokk na ko ba daana jox Cheikh Saliou Mbacké ñaari téeméeri xar ak leneen lu ca topp te bokkul yeneen yi mu jox ñeneen léegi mooy nag ba tey ni mu ko doon defee rek nii noonu lañ koy defee loolu lim boobu mu daa joxe dinañ ko jox sëriñ Touba. lan ca man ci ñeneen ci bokki sëriñ Touba yeeg mu soobee jege yàlla yi ñu def ko waaye liggéey la boo xaay sosuñu ko fi doon ko fee fekkan. sunuy maam ak sunu waajur di ko def nu ànd ak doom yi ak rakk yeeg taalib yi yëpp di ko def nga di sàkku ngërëmu Sëriñ Tuuba loolu mooy cosaanu liggéey bi. day doon xar yoo nga xam ne ngeen nag ku ne yaa xam moom ni ngay indee sam xar waaw am nañ dañ koy waajal yar ko ba déwén am nañ dañuy bàyyi ba ak suñu jënd ko. waaye xar mu ne naat dana fi ñëw ñu jënd am xar ci téeméer yu ne indi ko ñu jënd am xar ci juróom-benn fukki yu ne indi ko ñu jënd am xar ci ñeent fukki yu ne indi ko ñu jënd am xar ci ñaar fukki ngeen ko fekk ngeen fa xaree ne gis ngeen ni ñu mel ñëpp chef lañ koy defee ànd koog nag. bu xayma at ne moom hmm? ñaata xar ngeen di yóbbu hmm, yóbbu. loolu dañ ko may tudd waaye li ñu yët Sëriñ Tuubaa daal mat na ñaar téeméeri xar waaye dañ koy joxe ngir jëmm Sëriñ Tuubaa rek ñaar téeméeri xar la soog a jël nag li ci des jox ko ñeneen yenn mbàkke mbàkke yeeg yeneen busoo bi yeeg yilimaani jumaa yeeg yeneen yi gën a ndaw ñu dimbale ko yenn taal bi nga xaye seen kattan matiwu ko noonu lan fekkoon suñuy kilifa doon ko def noonu lañ ko doon noonu lañ ko def ba léegi liggéey bi di nan la tollu ci yéen ngeen koy jëf. liggéey xanaa xanaa fonk koog neex na ñu bëgg ci rek liggéeyal sëñ Tuubaa moom koo xaay loolu nga mooy sa alal loo ca def la lay neex nga bëgg ci waaw. moom daal ni ma la ko waxee rek danoo fekkan suñuy waajur di ko def ak suñuy maam lu leen ci roy ndax sëriñ bi daana wax naa aji roy moom dara du ngóor am lu may nuru ko roy rek. te noonu sëriñ bi lañuy ñuy roy moom it waajurum yooyu rek la ñuy roy ak i maam loolu mooy liggéey bi. yan kàddu ngay soññee mbokki tàmbali. Hmm? mbokk yi lan yan kàddu nga leen di soññee ci waaw xanaa soññaat leen ci rek ba yàlla bàyyee lu ci defante rek nu def déwén lu ko ëpp ndax sëriñ bi daana wax ni bépp tëdd boo xay ñor na la bu waxtu tabaski jotee xar mi ñuy laaj di ko Sëriñ Tuubaa di ko joxe. wax ku ci sa doom ku ci sa soxna am doom balaa bis biy dellu si di nga nim xar te lii ren ba déwén la bu seexee ñaari doom di nga ni ñaari xar balaa bis bay dellu si kon xarum Sëriñ Tuubaa bi bu la ñoree ren ba déwén di nga ko indi waaw loolu mooy soññee bi rek. daana waxe na na na na bokk na ci fulla nag lañuy laaj nga joxe ko fu ñuy laaj mbaxana daal nee lay fulla mooy nga joxe mbaxana ginnaaw ay xar ay xar la laaj lay ful la nga nim xar. na naka nga gisee Pastef da ngay ci liggéey ah am ci Pastef rek Pastef moom wane nañ ko boo demee yow nga ko sa bopp xam nga ni jëfi Pastef la. noonu laa ko ànd ak sama rakk yëpp it Serigne Bassirou rakkam yëpp naar jenn mais mooy doomam ju mag moo fi teew nii fekkee jëb liggéey ñuy waxtaan yooyu yëpp bu soobee yàlla bu. talaata ci ngoon danañ ko yët sëñ Sidi Muxtaar yi ñu ko yët sëriñ Bachir mi xalifa sëriñ Baara Diagne li ñu koy jox jox nañ limu xar yi nga xam ne moom ngeen hmm. lim bi de moom jërul tudd moom moom jërul tudd gis nga ko moom lépp daal di seen tubaab la jëm xanaa bu ñu ba ci suba sa boo fa ñëwee doo fekk dara. incha allah lépp na dem sëñ jël sa kër mi ngay koy indil moom moom hmm. fii xalaat kaddu hmm? sant taalibe yëpp rek ñaanal leen gërëm leen ñaan xéewal yi dolli ko ak wërsëg yi ba nu yéene jëf sëñ Tuubaa rek nu man ko waaw loolu rek waaw xam ni daal li sëñ bi waxan rek aji roy daal ni nuru ko fa kamuy roy rek waaw loolu rek mooy ngóoraam ñun nag booy ci ndigal bàyyi bàyyi tere jaamu yàlla joxe sunu ñaq loolu lañ fi fekkan Cheikh Issa doon ci dox suñu baar di ci dox sëriñ ngañ genn sëriñ naa di ci dox ñu coor rek lan nekk loolu rek xar yi ñun ñi koy joxe ci nekk xar mi ngay indi fii xalaatoo ko rey sa kër sëñ bi rek lañ ciy xool sëñ bi rek bu doon ni menn la it ñu indi ko buñ doon dem ca taabale ñun itam dem dem dem gori ndawal dégg nga ko indi jox ko suñu njaboot wante sëñ bi tamalan nanu loo xam ne ci xar yi noonu mën a def suñ kam kattan dina ko jéem indi waaw pas-pas boobu rek liñ ci yàq egg nañ ci moom bu doon ni menn la it ñu indil ko sëriñ bi moom bu ñuy dem ca taabal yi dem ca taabal yi.